Euh, de la 7TV wala ngeen dugg sur le www.7tv.sn euh, Kadior Cissé maa ngi lay nuyu di la ziyaar ci suba si dalal ak jàmm. maa ngi lay fay Aïcha gloire à Dieu sant yàlla ñu may ñu fekkee di nuyu mbokk yi ñuy teewlu suba ba léegi. dalal ak nuyu Pape Malick itam. Pape Malick nuyu naa la. Aïcha maa ngi lay fay maa ngi nuyu aussi bépp téléspectateur bu ñuy. Euh, Euh, seetaan ce matin di nuyuwaat aussi Kayor Cissé. dal leen ak jàmm la revue web dañ koy tàmbalee ak génn àdduna ki nga xamante ni moo di Mansour Thiam. Mansour Dieng ni ki démb nag la génn àddina nekkoon journaliste people euh, génn ak àddina boobu nag euh, ginnaaw ba mu euh, ay yaramam sutantee nag lu ci ay diir yu am solo ci noonu la génne àddina ni ki démb moom nag jàppale ne moom moo sos journal bi ñu bi ñu magazine bi ñu duppee Icône magazine Icône magazine moom nag jàppale ni itam euh, nekkul journalisme moom mooy formation bi mu def waaye dafa lu ñuy wax ku jàng dans le tas euh, bëgg gi mu bëgg métier bi ak ñii mu côtoyé ñu nekk ay professionnel moo tax mu dem ba daal di am aptitude yi moom nag euh, daanaka diplômé la en industrie polygraphique notamment li nga xam ne moom mooy édition et livre maanaam monteur yi ñoom. xadi ak yooyu ñoom aji moom formation boobu la euh, def waaye dafa teel a bëgg ay affaire bind ndax euh, jaar euh, métier bi mu def moo tax sax ba mu dugg entreprise bi nga xam ne moom mooy Soleil Nice jaar na fa comme ci seen service technique bi waaye très daana daan bind fi nga xam ne moom mooy. Yaya le petit Dakarois nga xam ne Dakar matin moom moo koy euh, daal di euh, fësal euh, moom ci daan ci bind mu depuis école primaire itam mu jot na bind itam ci Bal des Flashs muy journal boo xam ne journal lycéen la bu Blaise Diagne moom 13 ans nag ci la tàmbalee bëgg wàllu bind rawatina Paris match bi nga xam ne moom. la euh, bëggoon ay euh, at nag mu nekk ci métier bi ginnaaw ba mu demee Italie nag mu daal di dugg ci euh, daanaka département français bu Vogue bi nekk foofu mhm. laata muy ñëw fii di bind ci coof magasine bi nga xam ne lay Bamba Diallo moo ko moom ca noonu nag la dal di sosé yëfu boppam mu duppee ko Icon euh, magazine boobu ba léegi nag mu doon bay waaram ci wàllu euh, people ndax journalam boobee daanaka dafa bëggoon mu def 100 pour cent people waaye ca mujjantal ga danay wax itam waxu euh, politique mm-hmm. moom moo dal di génn àddina ñu koy ñaanal rek suuf woyof ci kawam Amin Nafissatou Diouf mu ngi xamal ni que état bi euh, dañ koy laaj ngir rek mu delloo ab oto bu ko présidence jox waaye moom nee na oto bi sax nag mosu see jot. waaw Dakaractu moom moo koy xam xamle ni ki tey sax nag la war a dem muy ji euh, li nga xam ne moom mooy euh, sûreté urbaine. Euh, moom Nafissatou Diouf moom moo fi nekkoon euh, directrice euh, bu télédiffusion du Sénégal moom nag dañu ko njëkk a woo wax ko waxu convocation mu laaj nag papier bu koy firndeel bañ ko ko joxee démb nag tey fas naa yéene dem wuyu ji waaye la ñu koy laaj mooy ab nee na dañu ko laaj oto boo xam ne. cinq cent huit la boo xam ne moom marque Peugeot nee na la ñu koy laaj euh, présidence moom moo ko moom moom lañ ko joxoon nee na nag moom liñ koy laaj moom déjà mosul sax dawal oto 508 euh, boobu ñuy wax musu musu see jot waaye dina dem wuy ji ndax euh, woo nañ ko su demee ñu daal di dégg ñu daal di koy déglu mu indi ci lu leer ñu wax ko itam 508 yooyee nan la demee ba turam daal di ci génn. lii nag ab laaj la kajoor bu ñuy daal di samp conflit en Casamance coow la am ci Casamance euh, ban rôle wala boog ban taxawaay la ci journaliste yi war a am. loolee moom daanaka moo sabab ndaje moo xam ne Seneweb moom moo ci dellu siwaat fële ca euh, Ziguinchor lu toll ci fanweer ak euh, juróomi journaliste. yu bàyyeekoo ca région Kolda Sédhiou ak Ziguinchor ñoom la ñu dajale ca Cap di leen tàggat Euh, ci ana nan la ñuy saytoo xibaar yoo xam ne dafa laale ak bërëb boo xam ne dañoo nekk ci guerre ndax euh, du lu ne loo xam ngay fësal mhm. ak euh, nu la neexee nga koy fësalee loole nag liñ ci jublu mooy fexe rek ba ñoom way taskatu xibaar itam ñu ñu gën a am taxawaay bu ñoŋ ci utum jàmm boo xam ne ñi ngi koy ut ndax bu ñii di gas ñii di suur day compliqué faw itam ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo wàllu xibaar aussi ñu xam Euh, nan la ñuy euh, doxalee su ko defee euh, dina moytu yenn xibaar yoo xam ne au lieu que mu mu mu boole nit ñi dafay gën di jur féewaloo mhm. mu nekk zone bu sensible ak ay situation yu sensible yoo xam ne dafay nécessité aussi traitement bu sensible boo xam bu responsable mhm. bu jugee ci wet taskatu xibaar yi looloo waral nag ñu dajale leen foofe ca Cap Skirring ngir ñu daal leen tàggat ci loolu Euh, Kajoor dañ koy jeexalee ak ñaari étudiant ak benn élève ñoom nag dañu daal di dajale seen ay koppar ngir rek daal di mën a euh, jënd lu toll ci deux cent cinquante kilogrammes de yamba. waaw doy na waar nag yaa ngi <laughs> ree ndax euh, étudiant yaakaar naa ay boursam la waroon li jënd xool nu mu yokkoo jënd ci ay livres ak yooyu donc Pulse Sénégal moom moo koy xamle ñaari étudiant la yoo xam ne tey nag daal nañ leen tëj. Euh, ca euh, keso ginnaaw ba ñu leen euh, attee ñu di leen toppee nag jëfandikoo hashish di xeetu sinébar boo xam ne itam dafa am doole dafa doy waar lundi la ñu leen doon atte ca tribunal flagrant délit bu Dakar ñoom nag nangu nañu li nga xam ne en tout cas ñoom ñett mm-hmm. nangu nañu li nga xam ne Euh, moom lañ leen doon toppee rawatina ñaar yi bokk ndax euh, ci trois heures du matin la ñu leen euh, daal di fekk fekk ab oto patrouille bu police moo doon def patrouille mu ñu fekk leen nag ci ab mbedd bu nekk foofee ca Fann résidence ba leen ba ñu gisee oto bi nag. doon doon jéem a daw ca lañ leen dàq jee euh, jàpp leen waaye oto ba nekkoon ñoom ba ñu ko vérifier euh, ca la ñu gis ne euh, ñu ngi defoon oto bi mu ngi defoon lu toll ci deux cent cinquante kilos deux cent cinquante grammes li nga xam ne moom mooy hashish ñoom nag kilogramme deux cent kilogrammes deux cent cinquante kilogrammes hashish nag ñu téye leen daal di yóbbu léegi ba ñu leen atte nag euh, ñaar ñi nga xam ne kenn ki mooy Yaya Kane euh, ak euh, Ibrahima Ñing ñoom nee nañu dañoo cotiser pour mën a jënd li nga xam ne moom mooy yamba bi Yaya Kane nee na moom de vingt mille la cotiser bi Ibrahima Ñing ne cinquante mille moom la cotiser waaye Bamba seen seen ñetteel bi moom nee na cotisé wul dara donte nag moom ñoom ñoo àndoon ba ñuy dem jëli yamba bi. ci HLM ah. HLM lañ ko jëlee donc su ko defee ñoom ñëpp nag dañ leen daal di euh, teg. daan boobu nga xam ne dañuy tëdd kaso ci jëfandikoo wàllu sinébar waaye itam di euh, ko di ko di ko jaay. <laughs> <laughs> di ko jaay sa <laughs> di ko jaay bi mën a toog di ko jaay jërëjëf Kajoor <laughs> yàlla na yàlla dooli sutura waaye ñoom dañ leen sauvé ndax yàmbaa gi xam naa ne buñ ko toxoon du baax ci ñoom de ah. doy na waar et ça montre un peu boo waxee étudiant wax élève c'est des jeunes ah c'est des jeunes ay xale lañu donc euh, voilà loolu rek moo ci xaw a yu nekkoon si si si si oto. Mhm. Euh, certainement euh, doom baadoo la amuloo oto bu étant une étudiant. ak euh, élève nga mhm. nga yor oto à ta disposition di di di jënd lu toll noonu ci ci drogue euh, baadoolo xaj naa dina tal lu mu lekk wala euh, njëgu ticket ticket restaurant yu mu yu mu lekkee du mhm. loolu mais non ça revient encore ci li ñuy wax bàyyi xel ci doom yi démb on en parlait justement c'est important de di bàyyi xel say say doom parce que euh, tendance bi léegi dafa mel ni ñoom dañ ko def tendance def lu bon tendance la léegi jigéen buy xale bu jigéen buy toox wala muy naan mhm. dañ leen koy dañ koy téye verre ver bi dañ koy téye nii sans vergogne mhm. euh, finalement boo ko deful sax da ngay mel ni benn wadd ku ku ku jugee ku waaw sama sunu classe gi ñun ñu jugee fee village ñëw donc c'est dommage et puis heureusement que té nañ leen justement vont faire l'objet de redressement j'espère que peut-être temps bi ñu leen di téye dina dina leen ibbi dina yee yee seen dina ibbi seen xel xam ne peut-être yoon bi ñu nekkoon baaxul puisque on l'a fait tôt mm-hmm. peut-être que ils auront la, la chance de se, de et, repartir sur de nouvelle base ah. euh, si étudiants yi yi ñu condamné ne mm. euh, bon doon <laughs> waar daal xam naa ne parce que étudiants moom bon kenn xamoo leen ay trafiqué mais tamit bon nit ku nekk ak sa ambition bu nga bëgg dans la vie am ñoo xamante ne peut-être dañoo bëgg a réussir si études yi nekk euh, nekk chef d'entreprise am na ñoo xamante ne bon dañoo bëgg di euh, gagner ay milliards vite fait sans passer par euh, chemin yi nga xamante ne mooy chemin yu classique yi bon voilà juste ku nekk ak seen ambition dans la vie peut-être ñoom loolu mooy seen ambition mais tamit bon loo gis si mm-hmm. àdduna am na ay risques mm-hmm. Mm-hmm. donc peut-être bon loolu la ñu opté pour def ko ah, pour s'enrichir et puis ñu baaxul ñu ñuy jàpp leen euh, dina leen euh, dina yee dina leen yee ñoom ku ku dégg aussi tamit information peut être dina la yee. bu fekkee nekk si. ci mbir mi waaw si yeneen affaires yi surtout nga nekk jeune. Mhm. Hmm, am na yeneen moyens yoo xamante ni moo gën a yomb mhm. pour nga. Mhm. Euh, pour nga je pose et puis moins risqué aussi. parce que boo am na yoo xamante moom c' est très risqué suñu la jàppee bon mën na mën na mën sa àdduna. donc il faut. bon voilà il faut bon, je parle à l'endroit des jeunes il faut pas que euh, la il faut pas aimer facilité. xam nga liggéey parce que je que bu fekkee da nga liggéey rek surtout boo nekkee ndaw. Euh, bon lépp mën na la réussir. Mhm. travail rek moo am solo quoi. donc il faut travailler si loo mun mënti nekk. Mhm. et ba bañ a bañ a verser la facilité quoi parce que facilité moom mooy andi nit yi. moo lay ci lu ne ñu dem ci yenn yi ba nga xamante ne su suñu a jàppee daal wala ñu gis la si yenn yi. Mhm. Euh, du. baax. waaw tëj la kaso nga yàq sa àddina tardel sa bopp loolu jeune bu nekk. Mm-hmm. Euh, war na ko rek euh, mën a moytu waaye lii laaj bu am solo la conflit en Casamance quel est le rôle des journalistes dans la recherche de la paix jàmm euh, moom la ñëpp di sàkku fële ca Casamance waaye mu mel ni taskatu xibaar yi itam dañ ci am benn rôle bu important benn rôle bu crucial bu nga xamante ni war nañ ko ci jouer Kajoor. c'est ça man je prends juste l'exemple de kenn koo xam ne. Euh, bu ñuy wax journalisme foofu noonu ci Casamance en tout cas euh, en matière dans dans dans dans dans le traitement de l'information liée au conflit euh, kenn mënu ko ci génne muy Ibrahima Gassama de mhm. de Sud mhm. defe naa la nekk léegi mais période ba muy am problème bi Sud la nekkoon moom dans le traitement de l'information à un moment donné arrêté woon nañ ko sax parce que mu ngi doon def liggéeyam mais en en faisant le travail à un dafa dafa dafa dafa mettroon en danger l'armée sénégalaise par exemple en tout cas ñoom ni ñu ko waxee parce que dafa joxoon information yoo xam ne c'était pas des informations à donner mhm. mais moom il s'en rendait pas compte c'était en fait il s'est trompé de mauvaise foi euh, mhm. de bonne, foi. donc euh, ñu euh, ko mais après bàyyi nañ ko donc euh, c'est juste un exemple que je donne pour montrer que boo nekkee dans en zone de conflit aussi am na nooy nooy doxalee mhm. am na très en fait le, le journalisme en zone de conflit sax c'est branche la boo xam ne dañ koy jàng mhm. normalement donc euh, boo ko boo ko jàngee aussi ça te permet boo nekkee ci zone yooyu noonu nga nga mën a def le tri ba xam yan information ngay génnee ak yan nga dul génnee mhm. am na yoo xam ne sax information yooyu da nga koy am loolu moo tax euh, formation bi am solo yow journaliste bi da nga koy am mais au lieu que nga fësal ko. Mhm. yow am na sax pas yoo mën a reg dox. pour régler problème boobu noonu. sans pour autant nga exploiter ko euh, pour que nit ñi di ko donc c'est c'est c'est de de choses yoo xam ne peut-être mhm. buñ leen ci tàggatee. ça va éviter euh, dérive yu bëri yoo xam ne parfois dañ koy def. Mhm. Euh, par par par par par par mégarde. Mhm. Euh, duñ ci xam dara donc je pense que c'est c'est une excellente chose qui devait être fait depuis longtemps parce mhm. que bëri na loo xam ne tey il y a René Capin Bassène boo xam ne c'est un journaliste aussi il est impliqué dans une affaire boo xam ne tey. condamné nañ ko avec une peine lourde ba léegi mu ngi mu ngi prison moom mu ngi mu ngi yuuxu innocent sam ba léegi ñi ko wër ñi ngi wax ne il est innocent mooy affaire boo fa boo fa bàyyee boobu noonu quel genre de traitement il a fait ba police mm-hmm. jàpp ba ba euh, les forces de jàpp ne daf daf ci impliqué c'est c'est des choses à à à à faire il y avait longtemps qui devaient être mm-hmm. faites il y a longtemps maintenant il est jamais trop tard pour bien faire voilà ça permet de regarder ku nekk di nga xam mhm. fan nga mën a yem mhm. et puis comment tu tu tu dois tu, tu, voilà te, comporter dans cette mhm. zone là parce que nekkoo Dakar nga xam ne ñun bu ñu yeewoo dañuy wax lu ñu neex c'est une zone bu bu nekk bu bu nekk bu sensible donc il faut un traitement euh, un peu plus responsable quand même c'est important voilà euh, euh, la Euh, c'est très important parce que daf lay woon rek dayo formation aussi euh, nit ñi nga xam et puis sensibilité information Euh, mun naa wax ni benn benn degré bi c'est pas sensible parce que am na information mais information mineure la mm-hmm. euh, mais am na foo xamante ni degré d'information bu fa toll il faut être prudent mm-hmm. et puis euh, xool ni ngay doxalee aussi tamit que soit mu nekk si tri bi que soit mu nekk tamit si diffusion bi mm-hmm. parce que loolu lu lu am solo surtout zone yi nga xamante ne ay zone de conflit la nga xamante ni y a beaucoup d'intérêt en jeu surtout loo xam dafay toucher Euh, ça peut toucher ça peut ça peut toucher la sécurité nationale. Mm-hmm. donc loolu lu lu lu am solo la que journalistes yu nga xamante ne dañuy nekk ci zone de conflit ko ñu former leen euh, ba nga xamante ne bon c'est dommage que bon parce que en Europe et puis euh, yeneen dëkk yi am na. ci àdduna bi sax balaa ñu laa jël di la yóbbu fenn fii il te faut des ateliers. Mm-hmm. ba nga ba nga am yenn ba nga xarañ ci yenn domaines pour ñu mën a par exemple Ukraine. Euh, wala wala fa zone wala wala wala Gaza. Mhm. nga xamante ne actuellement guerre moom moo fa am y a des journalistes nga xamante ni sont aguerris et puis ñoo lañuy wax les correspondants guerre. mooy yow gars yoo xamante ne bon ils sont assez expérimentés. pour bañ a joxe n'importe quelle information. Mhm. wala sax ñu lay utiliser boo ko wax na ko sànq fii un temps bon on a arrêté des journalistes sur le conflit Casamance et tout et je pense c'est c'est en 98 opération ne gars yi dañu doon dem la mèche euh, ba nga xamante ne bon ah, wax fu fu fu fu euh, soldats wu sénégalais yi nekk ba nga xamante ni ennemi bi mun na leen a mën na leen retrouver loolu il te faut de yenn formation yi ba nga xamante ne mm. si si ça se présente yow di nga xam nan ngay di nga xam nan ngay nan nan ngay doxalee ma jox benn exemple rek euh, temps yi passe am na benn journaliste Jeune Afrique bu ñu jàpp mm-hmm. je sais pas comment comment il s'appelle encore bon Stan Euh, Stan Boujakera loolu la tudd. Mhm. c'est un bon su ma waxee tur bi ñi nga xamante ne bon xam nañ ki ñaar Rwanda mooy lu lo langue bu nga xamante ne Rwanda lañ koy wax xamante ni c'est euh, c'est à Goma mooy est de Kayor boobu munoo wax information boobu démb moom mooy Ituri mooy ñi nga xam mooy euh, rebelle AFD yi nga xamante ne ay Ougandais lañ ñoom ñooy def foofu ay kii mais bii nii waa M23. nga xamante ne dañu wax ni Rwanda ñoom ñoo leen di jàppale ñoom ñuy xeex ak euh, force régulière euh, RDC. donc dafa am ay foofu noonu zone bu bu zone bu sensible la boo xamante ni frontière la entre RDC ak Rwanda foofu soldats Nations Unies ñuy fa. force M23 yi ñuy fa soldats wu xam ne ñooy rwandais ñuy fa parce que am na ay enjeux yu bëri. Mhm. léegi dafa benn journaliste bu ñu jàpp moom laa Stanis Boujakera c'est un journaliste très influent Jeune Afrique lay lay bind mais bon am na agence foofu RD Congo mais le nom Boujakera. Mhm. Mhm. ça sonne un peu Kinyarwanda parce que si frontière bi la juddoo. mu ngi mel ne rek euh, benn tur boo koo xamante ne. Euh, gambien la mais le nom son sonne léegi nag dañ ko jàpp parce que tout simplement c'est un congolais. mais tur bi soo ko déggee da ngay foog ne c'est un ko mhm. jàpp ne espion congolais yi dañ ko jàpp ni moom espion. Euh, rwandais la parce que le nom ça sonne ça le nom ça sonne rwandais et puis dafay joxe information yoo xam ne c'est défavorable au Congo alors que moom lui-même c'est un am na yenn yoo xamante ne euh, parfois aussi tamit sa identité bon dafay menacer un peu mm. sa identité mu ngi mel ne ñoo xam ne Guinée-Bissau lañ dëkk wala Gambie joxe yenn information yoo xam ne c'est défavorable à l'état du Sénégal yoo xam ne dafay toucher sécurité nationale donc euh, exactement c'est ça exemple boobu la si loolu yenn identité yoo xamante ne eh, am na ñoo xam ne dañuy foog ne sax yow pro benn parti nga mhm. alors que peut-être mën na demee le cas loolu moom moo tax bon c'est sensible de telle sorte que voilà journaliste bi quand il donne l'information bon mu xam véritablement fan lay situé wu pour mën a mhm. euh, voilà pour mën a bañ a léser benn parti bi au détriment de l'autre parti il faut être peut-être responsable et intégrité aussi tamit mhm. lu baax la aussi foofu la intégrité dëgg-dëgg di feeñee parce que parce que ay intérêt dëgg foofu lay foofu lay doxee mën nga nekk journaliste yow tu privilège nga am pour jigee un camp wala un autre donc ñu euh, euh, ngay def que soit ngay def interview wala ngay joxe information euh, que nga profité ci loolu pour di combattre benn camp wala nekk ennemi beneen camp il faut éviter ça pour l'intégrité dafa baax bien que la formation bon c'est très c'est très important pour ne mhm. pas je sais pas être tué wala menacé et tout loolu moo tax intégrité bon c'est là où je parlais de journalisme bi ngay def foofu noonu nga am mhm. possibilité aussi régler ay problèmes nga am information boo xam ne tu dis lii du koy régler mhm. donc truc mooy intégrité en tout c'est un truc bu nga xamante ni il faut beaucoup c'est un métier bu nga xamante ni il faut beaucoup de prudence mm. et euh, beaucoup de responsabilité aussi donc loolu am na solo maintenant Euh, Kajoor lii nga leeral ma rek na sa Diop moom moo nekk moom moo nekkoon TDS. waaw moom moo nekkoon TDS. voilà télé télédiffusion Sénégal waaw léegi dañu ko xam nga dañoo nekk di restituer oto yi. waaw euh, oto yoo xam ne véhicule de service la normalement yow bu ñu la wàccee danga war a delloo oto yi. Mhm. beaucoup de gens n'ont pas voulu. Euh, rendre am na sax ñu génn publiquement ne ñoom du delloowuñu mhm. d' accord ñoom peut être ils ont assumé léegi moom aussi le problème mooy moom nee na joxuñ ko oto 508 bi ñuy wax noonu musuñ ko ko jox musul sax dawal oto bu mel noonu et sa peut arriver aussi ah moi euh, je l'ai vu ne mu ne mu ne c' de c' bon xam naa bon c' est c' est c' est euh, de bonne guerre parce que politique la effet de la politique mais je pense que c' est c' une simple procédure boo xam ne loolu la donc tu vas partir pas reçu ñoom ils voir parce que bu ñu bu ñu bu ñu xamee tur euh, euh, marque oto bi ak yooyu dinañu xam ban jour lañ ko joxee jour bu date bi ñu ko joxee dinañ xam ndax date boobu c'est elle qui était directrice ou pas parce que am na ñoo xam ne dañuy wàcc mhm. dañ leen di wàccee ci seen post ñu yóbbaale oto boo xam ne euh, état bi moo la ko joxoon loolu aussi c'est un problème maintenant nag bu fekkee nag keneen moo la ñëw remplacer mhm. l'état considère toujours que oto bi mu joxoon parce que peut-être moi véhicule boo xam ne donc denn lay laaj loo xam ne mosoo ko gis moi pense que ça va être juste une une simple séance d'explication entre elle et et l'État ñi ñi ko convoqué ils vont leur dire ils vont lui tel kii la mu ne leen man j'ai pas reçu de. de alors moi je me bu ñu bëggee xam oto bi fu mu jaar ak kan lañ ko jox dinañ. c'est aussi simple ah, dafay joxe benn benn benn enseignement que euh, bon ñi nga xamante ne dañoo yor. Euh, Euh, patrimoine état Sénégal. Mhm. yow moom loo ko. bien Sénégal la mais suñu la ko joxee yaa ngi liggéey. pare nga si liggéey bi mais il faut rendre ça mais loolu moom mooy yoon mais comment ça. kër yi ah, bi warul am quoi. pour pour man pour man warul am ñu woo ay nit dinaan leen. Euh, il faut il faut rendre il faut rendre euh, tel truc bu ñu la jox pour man loolu c'est pas normal yow yaa ngi doon liggéey si benn service. Hmm? gis nga ne bon yaa saa yaa saa yaa moomuloo ko service bi jeex na fonction bi jeex na. mais il faut rendre euh, tous les biens yu nga xamante ne moom moo afférent ak sa ak sa service mais bu ko defee jàmm ni ñooy que mu nekk ay oto que mu nekk ay kër que mu nekk leneen ak leneen parce que fii nii d'habitude gars yi dañ leen di teg dañ leen di jox fonction ministérielle wala ñuy dem si beneen fonction mais après dañuy dem ba foog ne seen bien la ñoom ñoo ko moom. de la même manière ak ministre yi nga xamante ne def ay fonction ay ay diplomatique si yeneen dëkk yi. Mhm. jox leen ay yoo xamante ni peut-être ay euh, cadeau la au nom de l'État du Sénégal ñoom ñu jël ko dóol ko seen poche wala bu nekkee xaalis ñu dóol ko jë viré ko seen compte bancaire ba y en a plein. y en a plein gis naa gis naa ñoo xam ne euh, koo xam ne ñoom ñoom ñoom laa parce que du benn nit moo yor oto euh, oto yu ñu am cest si premier gouvernement Macky mhm. Sall bi mhm. nit ki wàcc na bu yàgg mais kër gi ñu ko joxoon oto bi oto yi oto yi ngay wax parce que dafa jékki-jékki quatre cinq oto xaw ma taxaw ci kër gi <laughs> donc ay doomam ñoo koy daal oto yooyu ba léegi doomam ñoo koy daal c'est pas normal pourtant ci ministère boobu yàgg na mm-hmm. te tey wàcc nañ ba léegi ñoom xam nga dañuy wax li ñuy wax affaire patriotisme patriotisme pour man fa citoyenneté foofu lay commencer cest à bëgg sa réew foofu lay commencer cest à bu fekkee ni dangaa yor loo xamante ne seen état Sénégal moom moo ko moom parce que tout simplement dañ la ko jox sa liggéey moom moo tax. mais soo paree si liggéey bi mais il faut rendre ça mais faut pas que yow nga def jël affaire bi daf ko. moomeelu moomeelu personnel loolu c'est pas normal et loolu du tax dëkk avancé. xam nga état Sénégal lu moom bien bien mobilier boo xamante ne état Sénégal moom moo ko moom il faut rendre ça bu fekkee fonction bi dafa jeex nga. nga xam ne fonction bi jeex Sow de nee na du delloo ba sam. xaw ma nan nu mu tëdd <laughs> yi mooy def moo yor kii a delloo nag am na si ñoo xamante ne nag nañu dañoo xaw a foqale waaye daal mbir mi daal dañ koo war a delloo loo moom lu la état jox nekkatoo fi delloo ko ñu jox ko ki nga xamante ni moo fi nekk mu mën koo jël. mais je comprends pour Nafissatou Diouf moi pas comment ça se fait muy muy wax ne ñoom yorul oto alors que ñu koy wan ko sa tour dafa figure moom loolu je comprends même pas comment ça on attendra de voir la suite. je, bon, pas peut-être peut-être erreur la parce que moom nee

mais bi mu décédé laa laa ko découvrir euh, Kajoor j'ai bien aimé portrait bi nga def ci moom ak ni ñu xamalee euh, kan mooy euh, Mansour Dieng bien vrai que il n'est pas un journaliste de formation mais en quelque sorte il faisait un travail journalistique justement ñu bu baax a baax à mhm. toute la famille à toute la corporation justement yàlla na ko yàlla yërëm bon euh, porte boobu noonu c'est c'est aussi une recherche parce que maa ngi yow euh, je connais pas la personne mhm. tout ce qui est people je je m'intéresse pas à ça pour dire vrai euh, pour être sincère ah aussi donc mënuma ko xamal lu bëri lu dul ñaanal ko yàlla mhm. yàlla yërëm ko donc euh, il a appris dans le tas certainement il a fait son travail comme il fallait parce que je ne jette pas un coup d'œil sur euh, tout ce qui est people mais euh, les adeptes en tout cas de mhm. de, de ce style de de de de de de, de journalisme euh, wax nañu ci moom lu bëri depuis démb yaa ngi gis mhm. témoignage donc ñu koy ñaanal yàlla rek yàlla xaare ko àjjana et puis voilà que que son âme repose en paix Voilà. Amin. Euh, je le connais. Hmm? Euh, on a, je ne l'ai jamais vu, mais on a discuté deux ou trois fois au téléphone. Euh, parce que moi, j'ai à l'école, je me suis ici affaire affaire bon mhm. Donc, euh, c'était une source. Comme il a beaucoup travaillé pendant des années, durant des années, si affaire mhm. Donc, je l'ai contacté. Et puis, il était souffrant. Vous me contacté il y a trois ans, quelque chose comme ça. Mais il m'a fait bon, je voulais une interview. Euh, si bon tel cas tel cas tel cas mu ne ma bon dama feebar mais su fekkee ne euh, je suis pas bien mais su fekkee bon feex naa dinaa dinaa def signe bon malheureusement boo depuis boobu noonu mujj ma def signe mais bon on a discuté trois ou quatre fois te pour ay information yoo xamante ne soxla naa si si soxla woon naa si milieu euh, mannequinat et puis bon je connaissais un peu bon historique lu mu travaille surtout sur presse people bi et mm-hmm. il faut savoir que Sénégal bon ça je me je me demande même est-ce que presse people sax muy am dëgg-dëgg parce que c'est une presse boo xamante ni c'est difficilement euh, faisable ici au Sénégal. Mhm. parce que ça touche à beaucoup de choses. il y a des scandales des ragots par-ci par-là. et puis ak suñu connaissance suñu culture suñu religion par rapport à ça ça marche beaucoup plus à l'étranger. et puis mhm. comme Kajoor nu mu a de magazines yoo xamante ne ay le renommé renommé mhm. euh, mais bon

ay sën yooyu bon gars yi xam nañu ko bu baax si si àdduna bi même même France ay Vogue wala El Magazine. c'est très très vendu quoi mais malheureusement au Sénégal bon ça marche pas trop j'espère que. waaw dinañu retrouver wu mais y a en fait y a beaucoup de risques quoi. même même moom sax. bon durant son bi mu yoree bi mu nekkee woon dir biir bu Icône Magazine bi waaw amoon na ay démêlés judiciaires at Euh, je pense que bon ouais, je, pense que Ibu, je pense que ubbi woon na sa benn journal boo xamante on l'a su waat on l'avait fermé parce que bon y avait eu benn mhm. parce que benn instant dafay xaw laal un peu la vie privée. de la personne amul un peu dafay a répondu à la question tout à mhm. l'heure bi muy wax peut-être daf ci jàll brièvement mais c'est une question de culture. Mhm. ñun euh, mënu fi prospérer xamul tax parce que Sénégal ni mu bindoo. bokkul ak nu nu yeneen réew yi bindoo mm-hmm. ñun dañu euh, yëfu bàmmeelu biir y a des sujets yoo xam ne mm-hmm. euh, boo koy traité fii dañ lay jéppi c'est-à-dire que la vie privée des gens fii nii dafa sacré mm-hmm. même bu fekkee sax tu un homme public fële na boo nekkee homme public sa vie privée moom amatul ci kii mais fii quel que soit statut boo mën a am sa vie privée tàmmuñu di di di di waxal nit yenn yenn yenn yu kii voilà mi ngi noonu donc du coup moo tax ñi koy def aussi euh, gis nga comment ban genre lecture la ñuy am ci ñoom même fekkee ñoom aussi ça si si si donc doo ñëw nii rek topp ci deru nit yi di wax c'est pas c'est pas ça aussi le journalisme léegi les gens qui se disent wax si turu jàmbur nga ne yeneen yeneen comme moo ma la cité non tout mais foofu législation bi. Mhm. permettre na à ce que. Euh, euh, que nga mën a découvrir yenn affaires yi am na benn je me rappelle am na benn benn kii benn benn affaire boo xamante ni c'était en France mais bon c'était euh, c'est un acteur Alec Baldwin dafa amoon ay euh, c'est un acteur américain dafa amoon ay jumeaux mais jumeaux yi dafa nekk si benn kër. Euh, léegi euh, ay paparazzi bon fii xam nga amul ay paparazzi bon je. parce que am na ay paparazzi ah, ah photo woon nañu mbaaco ba ba fësal. loolu paparazzi la bon je pense que moom moo est-ce que ne ko moom moo photo ay paparazzi la de. mais kooku je pense que est-ce que photo woon boppam. bon ok bon je voulais donner l'exemple que Alec Baldwin bon c'est un acteur c'est un grand acteur boo xamante ne américain la dafa dem France mais dafa am ay jumeaux léegi bi mu am bi mu amee jumeaux dafa yoon benn kër boo xam kër bu yaatu ci biir kër gi la mais ay paparazzi ñuy yëg ci kaw benn kër benn kaw étage. cest uh-huh. photo kii photo xale yi quoi. xam uh-huh. bëggul woon publier xale yi léegi moom mu porté plainte. Uh-huh. bu mu porté plainte euh, je pense Paris Match la woon bu mu porté boobu magazine People la aussi bu mu porté plainte après bu mu demee tribunal dañ ko débouté. parce que tout simplement dañ ne ko moom personne personnalité publique la. Mhm. et puis bu ñu xoo euh, si réseaux sociaux moom dafay wane ay jabaram may doomam affaire yooyu donc il a pas à se plaindre que ku ko fi defoon. dañ lay dañ lay condamné pour wane ni loi yi. fii mhm. dëkk yi bokk foofu c'est beaucoup mhm. plus toléré que que fii. si leneen lu nga xamante ni par rapport ak. Euh, ñu people yi fu mu fu mu bëggoon yow moom mooy. Euh, fii nii Sénégal presse people bi la moo tax aussi tamit. Euh, émergé wul. Euh, moom mooy euh, y' a beaucoup de bu fekkee da nga bëgg a def en fait dafa dafa nekk y' a beaucoup chantage en fait. Mm. parce que da ngay gis koo xamante ne.

déontologie comme yeneen dëkk yi ñoom bon loolu yeneen ñeneen ñi ils s'en fichent suñu yoree benn info dañ koy balancer. dañ koy dugal euh, voilà. merci beaucoup en tout cas euh, li ngeen ci wax am na solo war na mën a am doole ci réew mi waaye dafa fekk ni que Sénégal dafa am yu bëri yu nga xamante ni nit ñi waruñu ko laal sax intouchable day dem ba nekk sax tabu euh, si nit ñi waaye il faut aussi des formations. c'est formation dafa baax si lépp loo gis. mais Sénégal soo duñu la sax xam nga fële ne États-Unis société soo nekkee acteur wala actrice quelque chose comme ça dañ lay topp di lay photo bëgg xam si yow mais fii nii. Sénégal dafa doy waar. dañ nga gis koo xam da lay xam xamaana la mais du la faale sax <laughs> da ngeen toog même endroit mais du la lijjanti sax donc <laughs> tu as vu. Pape waa da ngaa a nit te lijjanti. non mais dañ lay xam mais dañ la war ni tam xam naa la quoi. je disais solo. parce que moi je connais des gens yoo xamante ni Kajoor dama leen gis ci leneen. Mm. ci leneen ñu daan tase ci yeneen télé mais tey eh, voilà il wala elle se réclame euh, comme étant des journalistes euh, people mais loolu moom mooy kas xam nga loolu moom bon bugguma bugguma kii sax parce que xam naa ne bon dañuy avancer mais loolu moom mooy cassure journalisme quelque part mm-hmm. parce que léegi euh, da ngay gis ñoo xamante ne internet bi moom moo leen jaay avant il fallait que nga jaar ci circuit classique yi mais léegi da ngay ngay mën wax rek mm-hmm. ah, proche benn réseau. Mhm. et puis nga am chaîne YouTube wala nga ibbi sa page euh, je sais pas si internet bi. et puis nga commencé di commencé di raconter ay ragots affaire yooyu ba nekk une célébrité boo xam ne dañ leen foofu ngay jaaree nag. Mhm. après nga ne mais pourquoi pas ma teg sama chaîne YouTube. après di ah, voilà topp waa topp di wax di di et affaire bi comme comme bu mun boo waxee boo bu fekkee ne yow mënoo ko teg si dëgg léegi da ngay inventé ay affaire wala di jàpp si ay supposition pour étayer yuy développé mm-hmm. donc loolu moom moo tax aussi tamit c'est c'est grave alors on enchaîne rapidement waxtaan wi neex na lool waaye dañu war waxtaane actualité politique ak économie léegi-léegi rek bu bàkk bi noppee ñëw dikkaat ci plateau bi